mooy Sadio digganteem ak eh, tata Ndeye Fatou Adama Thiali ndax dañoo gis heure bo demee ci làmb bu yuuxoo rek nga tàkkali koog sa sago ñii naan booy Sadio daa amul muy takk ñii naan booy Sadio day tux ñii ne day gens loo ciy wax. <laughs> non booy Sadio taalibe la booy Sadio du def loolu man cigarette bu ma xeeñee sax may bëgg a dee. billaay wallaay. mais mais mais lan moo waral loolu. waaw ñu gis ci open press cité bi tata Ndeye Fatou ñëw yuuxu. booy Sadio tàkkali ko sagom suñu yére yi sànni ñëpp kii àndul ak sagom lan la woon boobu. waaw yaa nday Fatou moo koy nuyu de passage yaa nday Adama Jali kooku sama yaay la man man man bi may génn ci àll bi bi may soog a génn ci àll bi maanaam géwél yi woy làmb fi ñu doon fanaan falaa daan fanaan ndax bu ma daan voyagé dem ci làmb ji su ma génnee du ma faxam xam kenn dama daan jël sama saak rek dégg làmb am na dëkk sàngam rek ma dem. Bima may dem bayang luum la doon ke ñoom bayang la doon ëpp li gis ñoom laa doon ëpp li gis mais man lambu momo bug bëgg man làmb ma bëgg bu lambu yëngoo rek sama deret yëngu te limi nday faatu limi muy wax ci làmmiñam bi macha allah mbayang tamit limi wax ci bi ci li ñuy sama xol lay laal wallahi da nga dégg li ñuy wax dama ciy for parce que duma ma duma mais su ma ci déggee loo xam ne touché na ma damay dem laajte ko. mën na bu mën nañoo mën nañoo jàpp ne kon keroog jëloo woon dara guinzon tuxoo laaloo dara daal. du ma tux du ma guinz man man jaamu yàlla laa xam doomu jullit laa doomu nit ku yu duma ànd ak kuy guinz man ñi may àndal ñëpp a correct ñun correct lañ ñu yare moo tax am na yoo xam ne moom nekkuñu si quoi. kàddu ngay yóbbante Batista parce que moom nee na ma jox ko micro na wax ba doyal te xam ne la kaat incha allah du wax dara. non loolu day caaxaan rek. incha allahu rabbi bu la kaat jàllee. incha allahu rabbi la kaat. sama première réaction yow yaa ñëw jël si ko incha allah. ci kattanu yàlla. ma duma ko ci kattanu yàlla. ma jàpp ko daan ko. incha allah. demee booy saxaja lañ amoon noonu adversaire u Batista waaw après da ngay woote adversaire u Batista buñ jógee nii ci Batista la jëm ndax Batista moom xam nga ne ku ko ku ko ku ko wokk mu xuli la wala boo ko wokkee mu matt la ba nga dagg moom mooy loolu du ko may dara moom dafa xaw a kii mais mooy loolu ñu bàyyi la ci dernier kàddu yi nga woo say mbokk tàggatoo woo koo bëgg waaw di woo waa Fass Mbao di woowaat waa Fass Mbao waa Cité Mandela xam nga waa Medina Fass waa Sam Sam xam nga waa post Thiaray Sika Mbaaw jàmm gën Jaksaaw tableau Tivaouane xam nga di woo ñëpp di woo adduna yëpp di woo sama waa dëkk nag waa saajo waa Taïf waa Bayla waa Gassane waa Thiel xam nga surtout sama waa dëkk waa saajo man Sadio laa dëkk man Jolof Jolof laa képp kuy Jolof Jolof maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma ci combat bi képp kuy Jolof Jolof képp kuy doomu Jolof maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma ci combat di woo waa Tim combat bi seen combat waa team Laurent combat bi seen combat ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn cat ba cat waaw di nuyu sama yaay di nuyu samay mag yu jigéen xam waa waañ ba di nuyu ñëpp xam nga di woo waa buntu Pikine ñoom Abdoulahat grand Kanji Kanji production maa ngi koy woo di woo monsieur le maire bu Sadio monsieur le maire actuel bi nekk Diamaguène Sicap Mbao maa ngi koy woo Cheikh Aline Bada Bèye ancien maire bi Ndofène Fall maa ngi koy woo ci combat bi tonton Cheikh maa ngi koy woo di woo sama yaay Margoja waa cité institut Pasteur cité institut Pasteur maa ngi leen di woo bu baaxa a baax a baax ñu ñëw jàppale seen doom ndax man ci cité bi dëkk man mbëru cité laa cité Aline Sow moo ma seq cité Mandela cité institut Pasteur cité Darou Salaam ak waa Fass Mbao ñooñu ñoo ma seq kon dama leen di woo ñoom balaa maa woo kenn ñu ñëw jàppale ma te buñ ma jàppalee seen doom lañ jàppale xam nga buñ ma jàppalee seen doom lañ jàppale. di woo ñëpp daal bàyyiwuma kenn te képp ku bëgg a jàppale Boy Sadio ñu ngi lay ñaan na nga ko jàppale ci ay billets ak ay car loolu rek la ñu soxla nañu gars yi jëndal ay billets yu bari parce que combat bii nii liñ liñ liñ bëgg a mobiliser suñu doole bopp mënuñu koo may il faut gars yi dooleel ñu. no bu dëkkee Pikine maa moom ko sax dama fa am ay fans. yow mii waaw. taamu nañ ko laajal kii. billaahi wallaahi taalaay ko ñoom ay fans laa fa am am pagaay Batista yére bu mu sol saa bu xëyee génn mën naa laa yëre bii la sol. billaahi wallaahi taalaahi barke alxuraanul karim barke alxuraan ak sama yaay jii nii saa bu soloo génn mën naa laa wax Batista yëre bii la sol. heure bu bu muy dem entraînement mun naa laa wax heure bii woo ko mu ngi dem entraînement boo ko soxlaa mën naa laa fi nga koy fekk boo bëggee sax ma lay wax ñi muy àndal. bu waxee wax. man toogee bu toogee wax moom. waxam day ñëw ba ci man mais man xam nga man aw ma jotu tontonte aw ma jotu waxante aw ma jotu nekk fii di lijjanti Batista lu muy def ak lu mu deful Batista man maa war a tax ñu xam ko li may taxee ñu xam ko nag damay bëreeg moom daan ko pour ñu xam. daanaan la toj. fu mu toj. Ah, bari na. fan ak fan. lu nga jël ko. fu wax ak làmmiñ. waaw wax ju bari. yéen a ngi yow boo duggee ci làmb bu dee làmb ngay dund nga seetaan samay samay combat seetaan samay vidéo xool làmb Batista musul dem chef de l'état Batista munuñ ko musuñ ko woo Batista mutul musul représenté fenn bu nekkoon daanaan ñu wooxu mu représenté fenn comprendre nga kon am na yoo xam ne man duma ci nekk di détail di ci sore ak moom waaw le 4 lañu lañ seeq ma nag moom te moom sama fans la daf may bëggee incha allahu rabbi le 4 mu ñëw mat daan ko ci kàttanu yàlla mu dem wër Batista waaw sama fans la ah dama koy daan may ko mu sol waaw. yow mii waaw. non du ma ko may yëre olof de kon day sañse. non dama koy daan may ko rek mu sol xol bi sedd <laughs> waaw. noonu la demee nag. sama doom day buur géwél waaw di ko bàyyi moom mu sànni kàddu wax ak dëkkandoo yi. wax ak waa koñ bi. ñu waxtaanee ko tuuti muy làmb mbër ak ma gars yi nag dañoo bëgg a jël milieu bi léegi indi ko ci biir làmb te gis nga nit mën nga am supporter bu ne mën nga am mafia bu ne mais am na loo xamante ne tey lamb daa am ban euh, bët koy xoolee mais yéen mbër yi tey jotul ngeen bàyyi ci xel yenn kàddu boo leen koy wax ngeen xam ni ngeen koy waxee rafetal ko. xam nga jamono bi wax moo garaaw te ku nekk ni muy waxee tey boo ñëwee ci man ni may waxee am na ci yeneen mbër yoo xam ne boo toogoon ñoom tey bu ñu waxee rek nga jàpp nga jàpp leneen. te fekk loolu ñuy waxee sax nekkul ci ñoom mbër du bandi mbër du woyu mbër du agresseur mbër du yàq yaa ngi dégg bu baax li may wax mbër day defar day boole monsieur le maire buy ñëw ci koñ mbër yi lay woo ñu mobiliser waa koñ bi wax ak ñoom monsieur le maire buy génn waa koñ bi lay woo imam bu soxlaa dara liggéey bu ñuy soxla ci koñ bi mbër la ñuy woo mbër yi mobiliser comprendre nga waa koñ bi leneen lu leen métti ci koñ bi mbër mi la ñuy woo lii moo ñu métti ci koñ bi mbër mi ñëw taxaw leen kon mbër dafa du yàq mbër du bandi mbër du woyu am na koñ yoo xam ne ni mu mel tey ku ci mel ne Siteu suñu grand bëri na ay boo yoo xam ne ay délinquant lañ mais Siteu da leen a corriger teg leen ci yoon utal leen ay xëy ñuy xëy di liggéey te pourtant mbër la mbër la daf leen jël recadrer leen wutal leen ay ay xëy takkal leen ay soxna ñu toog recadré wu yàlla dimbali leen nit ku nekk ak li la yàlla di nattoo am na ñoo xam ne yàlla da leen a nattoo beneen zaahir ñu nekk ci loolu duñ leen balaame loolu la leen yàlla nattoo ndax adduna bi foo jaar am na ñu baax am na ñu bon am na ñuy yàq am na ñuy defar dañuy ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole ci ñiy defar chaque jour saa buñ nee ñiy defar yàlla nañ ne ah diwde ak waa koñam ci lañ bokk ñun loolu la ñuy ñaan yàlla mais affaire de mafia moom waxin la rek tur rek mafia mooy groupe moo la mafia mooy groupe français la ak anglais sama groupe sama mafia mafia nag dafa xaw a dëgër parce que moo bi moo xaw a xam nga mais groupe ak mafia lépp benn la comprendre nga tey groupe boo xoolee ñii sama waa groupe lañ tey jii nii booy yi bu ñu bu dara xewee nii tey dañuy mobiliser wu ma ànd ak sama groupe dem loolu kese la mais affaire de mafia yeeg groupe yi mbër yi nañ xam ne du ñu ay bandi du ñu ay woyu ku bëgg a dund bandi wala nga bëgg a dund woyu nga dem ci àll ba nga dundee ko fa ñun làmb ji soxla ci loolu bandi yeggul ci biir géew ba arbitre tëjee barrière yi ba soufflé sax soufflé mu ne far ne la pare nga pare nga soufflé foofu bandi amu fa comprendre nga kon affaire làmb ji amul affaire bandi waaw bandi yaa ngi fële toog waaw di ñaanal ñi nekk si jeel bi nag yàlla génne leen fa yàlla génne leen fa ñoom ñëpp képp koo xam ne yaa ngi am ay problème ci adduna bi yàlla na la yàlla dimbali dindil la problème yi wàcceel la ko parce que suñu réew mi tamit jàmm lañ fi bëgg lépp lu fi nekk ci ay fitna yàlla ñu ko yàlla raxasal ci barki Seydina Muhammad yàlla ñu yàlla dindil fitna yi yàlla ñu yàlla laax fu laax yàggul xam nga yàlla musal ñu ci seytaane yi samay supporters nag li ma leen di wax lenn kese la le 4 mars incha allah comme li ma leen daan wax rek njoñ leen ginaar yi saaf fombiteer yi sañ sa ba rafet teg jus bu bari te xam ne guddi gi da ngeen a war a noos waaw. kooku Boy Sadio la ah mu wax lu am solo nag àdduna moom noonu la ñëpp mënuñu euh, ñëpp mënuñu booleen loo baax kenn ku ci nekk tamit la la yàlla teg nattu la ñu ngi ñaan suñu borom bu nekkee lu bon la yàlla la ci yàlla jëlee indil la ci lu baax parce que fii kenn baaxul amaan na sax ñun ñii di wax sax jubuñu moom mooy lool mais ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla teg leen ci yoonu jàmm yoon bu baax ci barke Cheikhul Khadim booy Sadio du ma dem nag te laaj mooy la xew ci réew mi euh, Ousmane Sonko plainte yu bëri yi ci ñu teg ci kawam mu nekk plainte euh, Adji Sarr policier bi ak Mame Mbaye sa gis-gis ci loolu tolluwaayu lol da xawma ci dara man entraînement kuy Ousmane Sonko non non. ci la fi la deuk de. man fi la deuk de man xawma Ousmane Sonko xawma Macky Sall xawma Adji Sar xawma Demba Sar xam nga lan la xam entraînement ñew sama koñ bi dem teddi japp sama ñamul di ñaan nak yalla yalla def jamm ci réew lol lay ñaan di nuyu nak soxna Xadi bu baax. soxna Khady yow mi may waxal xam nga sa